yàlla xam na ni dama nekk ci tawat ci perfusion laa jóge waaye damaa gis vidéo boo xamante ni web tv bu ñuy wax télé Dakar moo ko def ay sketch tudde ko waajal màggalu Touba 2018 kenn ku ne xam na ni màggalu Touba buy jëm si buy jëm si dañu daan enregistré boroomi xam-xam tudde ko waajtaayu màggal ñoom nag am nañu seen web tv bu nekk ci internet bi ñu dem wut seeni sketch wax ci wax ju bon wax ju ñaaw wax ni dañuy waajal màggal gi nan lañ koy waajale woykat buy woy musique sàngam tuubaal la jëm day dem jigéen ju sol lu bon tuubaal la jëm day dem yow jigéen ji dem sol lu bon booy siyaare jumaa ja li bon liy génn sa yaram na nga ko féetale gannaaw ndax ñii rang ki sa gannaaw yàkkamti barang bi gaaw ñoom noonu la ñuy dégtalee siyaare jumaay Serigne Touba ji màggalu tuubaa nag di xew-xew boo xamante ni nun murit lu nu am ci la nu ko am sëriñ Touba digle ko en 1921 wax ne nañ ko ci santale boromam ci ay bernde ci ganaar ba ba sëñ Modou Moustapha sëriñ Falilou Cheikh Abdoul Ahad Mbacké Cheikh Abdoul Qadir Cheikh Saleh ba ci sëti Serigne Touba yi El Hadji Bara sëñ Sidi Mokhtar ak Serigne Mountakha Mbacké mi fi nekk yàlla na fi yàgg loolu Mbacké te wér ba ñu ko dolee ba léegi lii ma gis tey kenn mësu koo ñime te bu ñu ko seetaanee danañu romb fii li ñu wax Télé Dakar wut ay gone ku sol colug murit gu yiw dend jigéen mu di ko laaj tontu la mooy lu waay bon le rek nungu nañ ko Tuubaa na ko yóbbu mu mel ni kon li ñu def ngir wax ni nii la ñu war a siyaare jumaa ji lii soxlawuñ ko Tuubaa lii soxlawuñ ko Tuubaa loolee la ñuy kontar wax ni lu bon lu ne ku mu neex na ko yóbbu Touba. loolee nag man de moom laa fas yéene maa ngi interpellé comité d'organisation màggal gi ndax bu fekkente ni dem ci yoon la ñoom ñoo am priorité ndax dañuy structuré màggal gi su dee porté plainte ñoom ñoo ca gën a euh, yeyoo ci man waaye man nag amaa manière fi ma toll li ma man ci faj ko maag ku di murit incha bi danaa ko def maa ngi sant Serigne Saliou Gueye Badar mi nga xamante ni moo ci taxaw ba siiwal ko maa ngi koy sant bu baax a baax di ko gërëm di wax murid dii nag ni leen nun day koo ci ni maa la gën a gëm sëñ Tuubaa mu xeex ak yow nun ñëpp safar bu teroo dañu koy màggal léegi benn fan ba ba ci fukki fan yi ak juróom-ñett loolu di innovation yu am solo di kar nit ñi màggali di leen jox ay berne lekk ak naan waaye nag am na sàmba booy yoo xamante ni jóg nañu ni ñoom danañ ko saboter à leur manière loolu nag dañ cee war a jóg taxaw dañ ko war a saafara ndax lii mag ña toppoon Serigne Touba bi Serigne bi woote màggal sëñ Moulay Bousso ñoom day ku leen waxoon tey ni leen waajtaayu màggal gi am na ñu jóg di wax ne nañ ko maajale waajale nii ñoom ñu weddi ko te nun ñi de képp ko képp ko ci tuddoon waajuram wala nga saaga ko mu jaay la bakkanam te Serigne Touba moo nu gënal suñuy waajur ñun bokk ñoo ñi nga xamante ni dañ naan maa ngi sant yàlla ak yonente bi ak sama ñaari waajur ñun dañuy sant yàlla ak yonente bi ak doo ko sant suñuy waajur sëñ Tuubaa li mu li munu mënal sunuy waajur mënaluñu ko sëñ Tuubaa lan yaakaar kon nag bisam bii nga xamante ni moom nee na lu mu am ci la ko am ci la ko nasaraan bi jëloon ni daf koy sànki génnee ko Mbàkke Bari fukki fan ak juróom-ñett ci weeru safar doon le 10 août 1883 1895 te moom nasaraan boobee ko jëloon dey moo dem ba ci biir mu wàññeeku ni jara jërëjëf Serigne Touba slogan Serigne Modou Kara Noreyni boobu ñoom tubaab yi ñoo ko njëkk a wax bërki démboo laa jóge Paris ay document ngi nii yoo xamante ni ci archive nationale de France laa ko jëlee ab journal la ngi nii bu daan génn ci Saint-Étienne journal bi ñu ngi ko créé ci le premier janvier 1854 nga xam ne ci Zaïre day tolloog ñëw sëñ bi jamono journal boobee journalam bi génn ci fukki fan ak ñaar ci weeru août 1926 lan la ñu titré jërëjëfe Serigne Touba journal baa ngi nii lan la ñu bind wiiw Ahmadou Bamba wiiw Ahmadou Bamba la ñu bind sant ci sëriñ Touba tagg ko ci ba noppi xarab ci président de la république française wax ko ni ko yow day Ahmadou Bamba moo la gën a doon jàmbar fukki yoon lu nañu wax ko ci sëriñ bi te ñoom day ñoo ko jëloon ni dañ koy sànki ñu ngi dem ba vingt et unième siècle ñu gis ni sëriñ Touba gisatuñ ko gisatuñu doomam yi keroog ba Alaaji a toogee am na kilifa goog dañu woon am na ñoo xamante ni bii day dañu naan yoon wi léegi lu neex waay def ndax sët yee ko dese te kaani dey doom ba nekk ci biir moo war a gën a wex kon nag Samba Sourabali ci tekkiwul dara jël màggal gi di ko foye di ko théâtre lu waay bon leen na ko yóbbu Touba yéen day booyee boo ngeen laxasu te xam ne man maa ngi seen kaw lu ma ci nag góobee gar am du ay menace du dara mbay géey sill laa tudd yaakaar borom daarul mooti dëkk fii ci daarul mooti yéen waa Télé Dakar ñi ko doon def bettuma leen ku ma ci gis day dinaa lay jaay sama bakkan di nga jël sama bakkan wala ma jël sa bakkan ku ko gis naan violence lay wala je m'en fous képp koo xamante ni fekk nga xaqida gëm-gëmi doomu aadama nga di ko foye lu la ca fekk yaa xam yoonu murid li mu représenté ci Sénégal màggalu Tuuba li muy généré ci ay milliards ay filio di puttaana du ma ko wax ci wolof ay ixu di putta yoo xamante ni bi tekkiwuñu dara démb ak tey jóg di foye bay wax ni booy dem di siyaare Sëriñ wax ca wax ju doy waar ñoom ñooñee nag ñoom day bàkk nañu njàgg man li may wax ni ça n'engage que moi danaa koy waxal murid yi nag ku ci mën a ànd ak man baax na ku ci mënta ànd ak man nga seetaan maag sama yëf yi bopp lay laa koy def man ndax ba may jébbalu tàgguwuma kenn dama si yenteeg sëñ Tuubaa contrat indéterminé te lii bu nu ko seetaanee ay institution ñaata nit lañ fi tëj offense à un chef de l'État ñaata nit lañu fi tëj offense à waaw un chef de l'État ab institution la magistra yoonu murid lan la màggalu Tuuba lan la ba ay ñu tekkiwul dara jóg di ko saboté ñu di ko seetaan kon comité d'organisation bi maa ngi leen di interpeller yéen de bu ngeen porté plainte dana gaaw lool waaye bu ngeen ko deful man ak taalibe yi ci mel ni man danañu jóg saafaraal ko sunu bopp ndax ñu ko def lu ñuy allemand lu ñuy japon lu ñuy chinois ay sénégalais lañu ñu ngi fii réew rek moo jàpp léegi gis nañu ni YouTube loo fa dugal te ñu seetaan na lu bari au fur et à ñu di ko seetaan da am xaalis tax na lu bon lu nekk ñu jël ko ni nañ ko essayé ndax nu am xaalis ndax ñu bari seetaan ko YouTube fay nu tax ñu jël tey màggalu Touba di ko foyee ba wax ni lu waay bon leen na ko yóbbu Touba kon nag jafaru leen te xam ne man de maa ngi ñëw ak ku nangoo ànd ak man loolu daal laa ni woon danaa leen ko wax yéen murid yi nag maa ngi leen di ñaan li ñuy wax Télé Dakar bu leen ko xoolati na ngeen ko bloqué bu bu site boobu bu ci kenn demati ndax seen yii ñuy def yëpp bëggu leen seetaan ba ñu am xaalis doo nga tax waaye nag ndagam Serigne Touba lañ jël di ko fooyee te ñun day képp koo ci xamante ni amoon nga ngénte wala ceet luye say baas ak say bank defar ko ba noppi nit ñëw daaneel baas yi dammate bank yi nga yóbbu ko ci yoon porté ko plainte xew yi nu dëgmal di di di magalu Touba nag moo gën ci nun ngénte gën ci nun ak ceet kon ku jóg bëgg koo saboté doon war a jóg dal ci kaw doon war a jóg dal ci sa kaw